assalaamu aleykum ñu ngi nuyu daairatul muntadibin li taalimi ulumi diin te di leen ziyaara nangu leen ma waay di leen balu aq di ñaan yàlla ni ñu ko teewe ren yal nañ ko teewe ni gën a déwén déwén dàqanu ren su na mee ñaaw yàlla mel na ren fa tabaarakallahu fa tabaarakallahu fa tabaarakallahu sunu xel sedd na sunu xol sedd na sunu xel dal na ma bëgg nag bala noo wax dara àllarba ji ngeen mu tax ngeen jóg comme nun àllarba lanu boroom àllarba ji nañ ko jox àllarba muy cheikh al xalifa ak cheikh sidi haaji malik ñu jàng fatiha ak ñeent fukki xul ak benn benn per faat fatiha ak benn per jëwtu kamal jox ko hadiya cheikh al xalifa may itam muy sama àllarba fii mu tëdd jox ko sëriñam xaaji Malick muy àllarbaam ak sama turandoo mi mu tëddal yàlla yokk seen leer ak mboolem way demi jullit yépp nag yokk seen leer fa tabarakallahu waa daara ji ak soppey daara yi ak njabootu soppe yi ñépp ñu ngi leen di nuyu wax dëgg yàlla daal la sallallahu alayhi wa sallam wax def ngeen ko nekku leen juróomeel ba de ma ne nekku leen juróomeel ba kun aaliman aw mutaalliman aw mualliman aw mustamian aw muhibban wala takun alxaamisata fata laka ay mubgidan muhammad nee na nekkal di aji xam wala ngay kuy xamlu wala ngay kuy xamle wala ngay kuy déglu ko xam wala nga sopp waaye bu nekk juróomeel ba mooy aji bañ fóore dalu leen muhibban fa tabaarakallah sana xaaliqina daara ji soppe yi njabootu soppe yi ñoñ soppe yi njabootu xaaji Malick njabootu Cheikh Al Khalifa njabootu xaaji Abdoul Aziz ak lu ñu jaboote asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant di leen nuyu di leen ziyaara di kontaan fa tabaarakallah sunu xaaliqiin ni ñu ko bëggee woon yëpp defe ngeen ko ni ni ngeen ko bëggee yëpp yàlla leen ko yàlla defale noonu matal ngeen wëlëre te dama daan wax ni koo mas a jàngal bu amee xam-xam mooy nekk sa première noonu mooy amoon di koo mas a jàngal bu amee xam-xam mooy nekk sa première noonu waaye jàngal ay nit ñu gën laa bëgg say doom gën laa bëgg sa njaboot loolu seen jagle la yal na yàlla fay leen te kat lii du sama mbir mbirum Cheikh Al Khalifa mbirum Seydi Hadji Malick ndax man ndongoom laa taalibe laa alarbaam laa kon bu ngeen ma dee teral xalifa ngeen teral xaaji Maalik ngeen teral cheikh al xalifa ngeen teral alxaaji abdul ngeen teral sëñ Moustapha ngeen teral mus cheikh Tiyaan si ngeen teral Abdoul Aziz ngeen teral xadara bi ngeen teral yal na yàlla teral leen fa tabaarakallah matan ngeen wëlëre nag te damay wax ni jamono xam-xam yéemewu fi boo xàmmee fiil xàmmee faayil ba nëkk sa rëy làmmeñ foofu fanaan ñu ne waajaangoog loolu bari na alal yéemewul boo ñemee yàlla fa bukki suule bukki leen nga bari le yéemewul ah lu jafe waay ànd ak sa waay ci wëlëre ren ba déwan waccu la waccoo ko ci la mbir ma te mooy lii te sama mbaay daana wax ni wëlëre way wéq moo gën way matt mënoon ngeen fa tabarakallahu ñu jàngal leen ngeen am xam-xam ba ne ci àll bi di jàngale lu ne ngeen di ko def waaye fa tabarakallahu sana xaaliq na baara ñin di sax baara ñin yi ñu wax ñoo leen ëpp ñoo leen ëpp ak yanjite ci suma soxlaa waaye nag yéen doom ngeen ci kër gi moo tax lii mën a am du ngeen taalibe ci kër gi doom ngeen ci kër gi te boo déggee fasu di wa wañu na mooy fas wa nga jënd mooy wañu waaye fas wa nga donn du wañu dégg nga sama kàddoo boo déggee fasu di wa dafa wañu mooy wa nga jënd waaye fas wa nga donn waaye du wañu ci biir kër ga lay dee kon fa tabarakallahu jëfandikoo ngeen ko seenu njaboot jëfandikoo ko soppe yi jëfandikoo ko ndax mbir mi kat daara ji lañu waxoon daara ji waaye kat daara ji ak soxlay daara ji ak njabootu daayira yi soppey daara ji nag soppey daara ji ak section yooyu ah ñu ngi bëgg a rif daara ji fa tabarakallah yal na yàlla fay leen tiit sambaay daana wax ni wëlëre wuy wéq moo gën way mat soo maam nee na fa fil ifa i ifa un fa aw foo wa naqdul hadi min fi'li fusuq xaaji Malik nee na kuñ ni mat nga te doo matal wëlëre matoo yonent bi nee na laa imaana man laa amaanata la wala diina li man laa salaata la wala salaata li man laa tahaarata la Muhammad nee na kuñ ni am nga ngëm te doo matal wëlëre amuloo ngëm ku ne am nga diine te doo julli amuloo diine ku ne da nga julli te doo laab julli waloo yàlla ni inna laa yaamurukumu an tu'dul amaanaati ila ahliha pourtant ka taxoon yàlla wàcca laaya ja gëmul yàlla gëmul muhammad wëlëre rekk tax kan la kañ la fan la kan la usmaan ibn abi talhata fan la fatxu makka kana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi ñëwee makka ci fatxu makkata boobu usmaan ibn abi talxata moo amee caabi kaaba ga ba mu séenee yëg ni muhammad mi ngi ci dëkk bi mu tëj kaaba ga yéeg ca kaw ñu laaj ko taal ta caabi ji mu bañ loola dayu ko nag muy kokkali naan su ma xamoon ni kii sang bii day kii ñëw yàllaa ko yónni kon ma jox ko caabi ji foofa la aliyu mere ñëw fekk ko fi mu taxaw mu wañ loxo ba nangu caabi ji tijjil muhammad ba mu defee la muy def ba pare muhammad tayaat kaaba ga abbas bay taxu muhammad nangu caabi ji ni kenn du ko delloo waa ji ndax lii mu ci def yàlla wàcca laayi ji aha caabi ji ki nga ko fekkoon ci loxoom delloo leen ko ali nga abbas caabi ji di ko jox usmaan mu gedd ni caabi joo xam ne dañ maa toroxal gaañ ma soxlaatuma ko mu ne ko joxuñu la ko yàlla la ko jox moo wàcca laaye ngir yow mu ne comme nag yàlla wàcca laaye ngir man ma itam nag ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah daal di tuub dugg ci diina ji waaw yow nag ci cheikhu tarqiyat ci cheikhu tarbiyat ci cheikhu tariqati cheikh al xalifa waaw matal wala rek moom damuy mel gaa ñi nuy sant nag di leen gërëm nag di leen gërëm bu baax amu leen morom fa tabarakallah fa tabarakallah man du ma leen jay nit bu fekkee ni dafay sa doom di sa xarit nga ne ko xaala dootoo ko jay ndax xam naa luy jay xam naa luy wax lu amul waaye fa tabaarakal ahsana xaaliqina yàlla yàlla xeeb dolli saxal yokkute yàggal amu leen moroom seen liggéey rafet na seen jëf mat na liggéey bi rafet na jëf ji mat na yàlla yàlla saxal leen daaw nag da ngeen maa sos aw ngémb saat fatiha ren na ñu ne kat danoo bëgg nga raxal nu ci jëwharatul kamaal ah jëwharatul kamaalu tàngaay bii nag jëwharatul kamaal jëwharatul kamaal ñu ne dañoo bëgg ren marabu booy waxtaan ren sunu affaire yëpp mooy na nga nu firil jawharatul kamal ma ne waa ji daara buur la kat jawharatul kamal ni mu garaawee ni mu garaawee nga xam ne ak poosé woom ak poosé woom sax lu ne la ñu daggata daggata daggata daggat ndax mu mën a poosé wu ñu ne ma nag léegi loolu ñu dagaloon daggata daggat muy ndeyi mbind ji moom la ñu bëgg nga firil nu ko mu jëwtu kamaal xam nga tariqa bi bi mu soog a ñëw ci cheikh maanaam jox ko ko téeméeri astaghfirullah la azim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum laazim bu jëkk téeméer astaghfirullah téeméer sar fatiha téeméeri laa ilaha illallah biñ ko jox wasifa nag i jox ko téeméeri astaghfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alxayu alqayum ak téeméeri sar fatiha ak ñaari téeméeri laa ilaha illallah booba jëwër a wàccagul bi ñu bëggee jëwër a wàcc te jëwër a nag dafa ànd ak yëfam ñu texeet juróom-ñaar fukki astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayul qayum teg fee mu def fanweer laa ilaaha illallaah comme ñaari téeméer la woon ñu ne tëpp téeméer ba teg fee saadu faatiha di woon téeméer ñu ne tëpp juróom fukk teg fee mu def fanweer ci astaghfirullah juróom fukk saadu faatiha téeméer laa ilaaha illallaah jëwal a sama waa ji soo ko mën a dugg si soo ko mën a am place da ngeen sama kàddoo gaañ dama ne téeméeri astaghfirullah al-aziim alladi laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyuum téeméeri saadu faatiha ñaari téeméeri laa ilaaha illallaah moo doon wasifa bu njëkk bi jawhara ñëwagul bi jawhara waree ñëw nag pour poosé wu si juróom-ñaar fukk ci astaghfirullah al-aziim alladi ñu teq ko teg fee saat fatiha ñu jël si juróom fukk teg fee mu def juróom fukk laa ilaaha illallaah ñu teq téeméer ñaar téeméer la woon ñu teq téeméer ba teg fee muy fanweeri astaghfirullah juróom fukki saat fatiha téeméer laa lay laa jëwale ñoo mën a poosé wusi loolu la ngeen may bëgg a suriloo yéen waa daara ji ak ñi bokk ci tarixa bi yépp ak ñi taatan ñi yépp waaw góore waay waaw nit boo ko joxee marchandise te wóolu ko jox ko bagage te wóolu ko nu ko deex def te marchandise ma sallallahu alayhi wa sallam ba muy jox seen amat yaan da koo jox ni ko lépp roog jox naa la carte blanche moom mu xool mbir mi nag ñu ne ko nag diis na na nga xool na mu gën a woyof nga doxale ko noonu mu seet déwére mu garaaw lool lool lool seen amat yaan moo ko soppete noonu léegi nag léegi nag gaa ñi ma ñëw ci mbir mi وصلى الله على سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ايها الاخوه الكرماء والأحباء العظماء والأصدقاء الرحماء أهل الدائرة المنتدبين لتعليم علوم الدين الوارد اليوم ها هنا في هذا اليوم لذات المحل الذي سمع ومن فيها من المشايخ علماء كالحاج مالك والشيخ الخليل فأنا أقول إسعافا لرغبتكم واغتناما لصالح دعواتكم وإرادا لبعض سؤالكم عن تفسير شيء من معاني جهة الكمال الذي هي بحر عميق وقف في ساحل على عوام العارفون في العقار فإن سيدنا ووسيلتنا إلى الله أنس العرفان وأعجبة الزمان ووحيد دهره وأمام وقته ما انتفع بالعبيد والداني في الدار التهاني رضي الله تعالى عنه تقييدا مفيدا عن الصلاة المسمى بيوت الكمال ما أبدع وأجاب man yéen mbokk yi nga xam ni yéenay way tedd di soppe yu màgg yi di xarit yu bari yi ma yërmande di ñëw bëgg ma bëgg leen ñu bëgg xaaji Maalik lu mu jaboote yéen daayira bi nga xam ni yéen a pencoo ci xamle xam-xamu diin ñëw tey jii nag lu ngeen di wut si matal wëllëre ziyaara ñi fi tëdd mu si da xaaji Maalik ak Cheikh al Khalifa ak suma wajur yi fi tëdd xaaji Mansour ak sunu baay bu tëdd bi xaaji Abdul Aziz ngeen dikk nag ngir sàkku déggoo ak xammam ak yéwénal ak mbir ak nag alaaxira ak bëgg nag ma wax leen lépp ci maanaam jëwtu kamaal jëwtu kamaal mi nga xam ni géej la goo xam ni géej gu xóota xóot la tàkk ma rek tàkk ma rek doy na way fee ña waxumaa dugg ci biir waaye nag ñeme naa lu tax Seex Ahmad Tijaan nee na moom mi nga xam ni mooy sunu sang di sunu jotlikuwaay di borom jamono di yéeme ci jamono di kenn ci jamonoom di borom waxtu wa jëriñ nañu ci jëwatu kamaal njëriñ loo xam ni doy na mat na sax na nee na inna hadihi salaat almusammaata cheikh ay wax bi jëwati kamaal min ibrahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li cheikh na xutba rabbaani mawlana abal abbas tijaani wa dakara laha rasul sallallahu alayhi wa sallam خواص منها أن المرة الواحدة تعدل تفصيلها العالم ثلاث مرات ومنها أن من قرأ سبعا إلى ما لا نهاية له تحضره روح النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة ما دام يذكرها ومنها أن من لازمها أزيد من سبع مرات يحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة خاصة ولا يموت حتى يكون من أولياء الله وقال سيدنا الشيخ عنه من دام على سبعا إن النوم على طهر كما كاملة وفراش طاهر إلى النبي صلى الله عليه وسلم شنامة جان نينا مامم نينا كو شنامة جان نينا مامم نينا كو benn jëtul kamal ku ko jàng mboolem loo xam ne aalam yaa ngi koy sabbaa muy aalam mulk aalam balakoot aalamul débaroot aalamul naasoot aalamu haahoot aalamu lamri mboolema aalami li ñu sàbbal yëpp benn per jawatu kamaal gën a forcé yàlla chanamat jaan nee na maamam nee na ko anna man qara sabar ila ma la neete la taxduru ruuxu nabi salaa sallam wa xulafaa arbaa képp ko xam ne jàng na jawatu kamaal juróom ñaari yoon te sellal njàngin wa sallallahu alayhi wa sallam ak xulafaa arbaa yëpp danañ ko gane maa la ko wax nee na képp koo xam jàng na jëwatu kamaan lépp nag juróom-ñaari yoon boo soppee Muhammad Muhammad sopp na la boo soppul Muhammad Muhammad sopp na la nee na maamam nee na ko te kat wala yakunu xata wala yamuutu xata yakun min awliyaa yi képp ko jàng jëwatu kamaan boo ko yëgee bala ngaa dee waliyu nga boo ko yëgul waliyu nga benn wilaaya gi ñu wan la ko ci sa dund wala ñu bàyyi ba ngay sukuraat wala booy nekk ci aljana ñu takk sa garaatu wilaaya waaye du mën a ñàkk nee na maanaam nee na ko ba xal seedna cheikh min nabi salaa sallam man daama alayha saban inda nawmi ala taadi kamilatin wa firashin tahirin yara nabi sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni yaa ngi jàng jëwtu kamaal bala ngaa tëdd la nga sol laab fa ngay tëdd laab nga di ko jàng bala nga tëdd juróom-ñaari yoon bala ngaa dee da nga gis Muhammad jëhërëtan waaw loolu nag mooy lan allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati والياقوت في متحقة الحائطة بمركز الفهم والمعاني اللهم صل وسلم اللهم يو يلا اللهم يبول بدا يتدان ما يدو يكتك صل يلا nga dulli xéewal wa sallim te nga dulli gu wóolu ala ayni rahmati ci jëmmi yërmande ja rabbaani kay ko dig borom nee na allahuma nag وأن الميم المفتوحة المشددة اللهم زيدت لتشعر بأن هذا الاسم الأعظم اجتمعت في أسماء الله كلها اللهم من مرمى بوغي سانيو دولي كوتا أسماء الله الحسنى يب دي يوم نين فك أجلو نين تور يالا يب يالا نكو رنك تي مرمى فيه تسعة وتسعون اسما من اسماء الله تعالى فمعنى اللهم يا الله الذي له الاسماء الحسنى يو يالا ميغا خامني ياي بروم تور يو ماغ يي فك نك الله لا وون يا الله لا وون ني سوبي يا بنا داما من مرا موتا دا يا اللهم دماني يا اللهم سنا كون يو يالا ياي منا دادا lañ soppi mi mara muy allahumma moo tax nag nu ngaa yàllaahumma ndax yaa ji waxte nga ko ba noppi kon loo ko indeeti ya allahu ngay mën a wax wala allahumma rek déedéet wa shazala allahuma bil xaridi nee na nag allahumma tawajjuh lil matlubi wa talabi li xuduri lmargubi bi tawassul bismi l adam الذي إذا دعا بي أجاب وإن سأل بي أعطى نينا اللهم لك lépp lu ñuy ñaan te muy ismu laay laazam moom la ci yàlla jiital lu tax baat la boo xam ni loo ko jiital loo ci ñaan yàlla mooy mbaal mi moom la ñu la bëjjën yi boo bëggee tugg ci biir géej géej te bëgg am ay jën ah boo amul mbaal nooy amee jën waay allahuma nag mooy caax bi boo amee caax bi nag dugal ko ci biir géej gi loo bëgg jàpp ci jën da nga ko ca jàpp yow buur bi nag salli yàlla nga dolli xéewal ala ani rahmati ci jëmmi yërmande ja ar rabbaaniyati kii ko dug yàlla maanaam ala sayidina bu mawlaana muhammad ayni xaqiqati wa daati rahmati almufidati ala jamil wujudi fardan fardan arabaniya yow yàlla yàlla nga dolli xéewal ci jëmmi dëgg-dëgg yërmande ja tey jëmmi jëm boolem yërmande ji nga xam ni moo bëbb ci mboolem li yàlla amal yépp kenn par kenn ak mboolem ak ñëpp yërmande yàlla moo bëbb ci moom aha rahmati rabbaniyati wal yaquutati al mutaxaqiqati wa innama udifat nag ila al xaalati rabbaniya li anna hada rahmatu mufidatu ala sayr wujudi daratan daratan qitatan min nur ilahiya fa baana laka an alfayda min datihi yanqasimu ila rahmatayni rahmati lula إفاضة الوجود على جميع الأوكاد أكواله حتى خرج من عدم إلى الوجود ورحمة الثانية إفاضة الفيض رحمات إلهية على جميعها من جنة الأرزاق والمنافع والمواهب والمنح نينا بوغس رحمة ربانية رحمة لاف كوتي ربانية مي كودو يالا نينا يا يرمني جي مو يرمني جيغا خامي داي بوب سي مبولم مي يالا عمل توتي توتي دوغيت par dogit mu bir nag ni bëpp googule ak yërmande dana sédd ko ñaari xaaj yërmande yu jëkk ji mooy amal gi nga xam ne yàlla amal na ko mbindee fi bëpp ci moom moom leeram te booba amaguñu dara yërmande ñaareel ga mooy yërmande nga xam ne yàlla ko bëpp ci ci nit ñi bi muy amalee ba noppi wërsëg yi njariñ yi may yi ak yi ñu mën a maye moo tax muhammad yi aynu rahmati rabbaniya ndax li annahu رحم جميع الوجود بوجوده صلى الله عليه وسلم ومن فيد الجود ايضا رحم جميع الوجود فاذا قيل في انه عين رحمه ربانيه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ان جميع الوجود كلها نشا عن رحمه الله ولذلك قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء او قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. لان صلى الله عليه وسلم موي يرمني موي بروم يرمني جيغا خاني موم لا يالا واخ في القران لي ba gis yàlla wax saqaani wa rahmati sama yërmande man yàlla wasiat ëpp na kulla cheyin mu waxaane wa ma arsalnaaka yónni wuñ la yow muhammad illa rahmatan dane nga yërmande lil aalamina ñël bindee fi moo tax muy al rahmati rabbaniya walyaaquutati almutaxaqiqati alxaaitati bi markazi alfuhami walmaani walyaaquutati muhammad mooy wurus wa almutaxaqiqati guddi aji dëgg-dëggi wurus di aji dëgg-dëgg ga waaw lu tax Muhammad ñu naan yaa xóotu di mu taxaqati te Muhammad moo gën a rafet wurus gi tax ñoo askane wulus mu ne wëy ya nag mais tashbihi l baligi wa shabaha bil yaquuti li kaw nii gaayata ma yudriku naasa fi sifaayi wa sharafi wal ulwi id huwa gaayatu ljawahiri saafiyati aaliya fa lidaa ustuira lahu ismu l yaquuti wa in kaana huwa ashraf min l yaquut wa asfaa wa ala ala xadi qawli taala masalu nuurihi كمشكات الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاج الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولا لم تمسسه نار نور على نور نانا محمد لو تخ نان محمد نك موي ورسوا با خاني موي اجي دغ دغ جا ني واو بو دي سيدنا محمد تي ورس tashbihu baliix la càtt bayaan nirale gi rek nirale gi nirale gi dafa am dayoo ci càtt bayaan ndax sallallahu alayhi wa sallam moo gën a rafet wurus waaye nag wurus lañu war a mën a taaroo ci adduna moom la ñu mën a misaale waaye muhammad sallallahu alayhi wa sallam taaram ëpp na wurus mi ngi mel ni yàlla wax ni allahu yàlla kat nuuru samawaati mooy leer asamaan juróom-ñaar wala suufi juróom-ñaar masiru nuur yi melaw leeru yàlla te miskaatin mi ngi mel ni lampe boo xam ni fiiha nekk na ca misbaaxul lamp al misbaax xam nañ ni yàlla leeram moo ëpp lamp waaye comme lamp lañu war a mën a misaale nag muy lamp électricité nga xam ni la ko ëmb muy lamp muy weer ba ca kaw lay leer ca biir ne ca biir si si jaaja moo tax sallallahu alayhi wa sallam ñun ñu moom daal moo yaaxuti mu daxasati yàlla lu ma juddu nag bi jëmi sifaat yi wala asmaa yi doo ko aliha wujudul kaw ni mboolem melow yàlla ak turi yàlla yi nga xam ni kuy wax ci ngay taxaw kuy def ci ngay taxaw moo tax Muhammad ñu tudde ko yaaquti mutahaqiqa alxaitati kadi aji peeg di markazil fuhumi ci saxub dëgg ya wal maani ak maanaaya teey alxaitati kadi aji peeg moom Muhammad di markazil fuhumi ci saxub dëgg ya wal maani ak maanaay yépp waaw مركز الفهوم والمعاني مولا قسم الحق سبحانه وتعالى لخلقه في إدراك جميع المعاني الكلام في جميع كتبه وفي إدراك معنى أسمائه وصفاته إذا اجتمعت تلك الفهوم مخصومة كلها جمعا واحدا نينا كوري يالا يتبي ak melo yu teel yu tedd yi ak xam-xamu yàlla yu tedd yëpp sallallahu alayhi wa sallam yàlla xamale na ko loola mbiram ba am dana war a mën a faj tijaari woo ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax markaz yi foofu wal maani nee na wanduur l akwaani l mutakawinati l aadamiya wanduur l akwaani tey leeru ko ñu mbindeef ya al mutakawinati ñe di aji sax di ak nekk al aadami ko ko ju aadama boo gisee mu ne wanduur yi nag dañ koo jar ataf ko ci ayni rahmat aha maana akwaanu lati tatakawanu cheyan bada cheyin wa yuqaabiluha ma baqa fi tayl adami في الأشياء المتقدرة في العلم الأزلي منقسمة القسمان قسم من أعيان ثابتة وهي ما سبق في علمه لأنها تخرج من عدم الوجود وقسم من أعيان عدمية وهي التي سبق في علمه أنها لا تخرج إلى الوجود وتبقى في طي العدم فإنه علمها لو أنخرجت إلى الوجود فأي حالة تتكون وبأي زمان تتكون ومن تقع وما لا ينصب وذلك محيط بعلمه صلى الله عليه وسلم yéen sallallahu alayhi wa sallam boo gisee muy nekk di leeru mbindeef ya yi nga xam ñoo ko jug nekk mbindeef ya ko jug aadama sallallahu alayhi wa sallam bu du moom yàlla yàlla di bind dara mbir yëpp yaqa yàlla mën na ko ci xam-xam yu jëkk yëpp yàlla koo séddale daf ko ay xaaj